téléspectateurs yi yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo Elvision Média sëpp la nee naa leen saa su ne man ci li xew ci laay dox ba tax na tey la 14 février ma daagu nànk ñëw biir euh, Fadia daal di seet si ndaanaan lu mag ko koy kan Soriba Koyaate di papaay xale yi dëgg neexul xew ci jamono ma ñëw fekk si ku biir këram moo mag ak ma ak ma madame Koyaate may lay nuyu bu baax a baax Soriba. maa ngi lay fay sama doom doomu jàmbur bébé Kumba eh, gannaaw buñ la nuyoo nuyu waa E, ni e, ñaanal ñi ñu jiitu rawatina suma yaay e, yal na yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu ñu nekk ci prison yi yàlla génne leen ñu bañ fa dellu ñu tëdd ci hôpital yi yàlla yëkkati leen may leen wér gu yaram di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suma njaboot sumay xarit sumay staff sumay am di jàmm ah, ñi nga xam ne tamit ñu may bébé bégee bu baax a baax di ko ñaanal suma papa yàlla may ko gudd fan bàyyi ko fi di ko ñaanal nag suma soxla bu baax a baax a baax suma njaboot yëpp sumay doom yàlla bàyyi leen fi ba mu yàgg lool lool lool waaye te may leen wér ko yaram. amiin yaa rabbi madame Kouyaté ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay bu baax. di nuyu nag ci sama kilifa si di ko ñaanal yàlla gudd fa nag wér ndax dundam am na solo torop. Mm-hmm. merci beaucoup ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen ñaar ñëpp may dellusiwaat tuuti rek euh, ci Soriba euh, tey di Saint-Valentin. vraiment di bëss mbëggeel ma bëggoon nga ñëwal ma ci tuuti rek nan nga xëyee ak madame <laughs> waaw madame moom comme li may wax tout le temps rek maag moom chaque jour saint valentin la dégg nga boo duggee ci kër gi di nga xam ne saint valentin la ñuy dund ndax euh, kër gi yëpp rouge blanc ak noir la <laughs> waaw maag moom dañuy dund loolu quoi suñuy couleur préféré la donc mu nekk nit ku baax nit ku am yar tamit euh, ku teey wax dëgg yàlla ku am kilifa nit koo xam ni neex na teg ci yoon Eh, te oef na dal ci man diisul deug yalla mu yombalal ma lepp di muñ kat donc koku sen sey day neex macha allah bu ci cat duggu te yàlla ma yalla baye ak mom bàyyi ñu ak njaboot gi ba ci kanam donc saint valentin mom comme niñ koy wax chaque jour dañ koy dund man ak mom dina am bis yo xamne nak ba bis yu exceptionnel la donc di moins ngeen bal ma dañ koy dund man ak mom ci jamm ak salam ci compréhension ci lépp li nga xam ne bonheur la donc euh, muy ñaan rek yàlla sax voilà parce que comme ni ñuy wax rek kër moom magu mag yu njëkk ya daan nañu wax naan kër jigéen mooy kilifa bu neexee ñoom la bu nakkaree ñoom la te dëgg yàlla suukar na fi <laughs> waaw suukar na fi daal waaw. dëgg la damay revenir tuuti rek ci madame Koyaté parce que tey fetu mbëggeel la ah madame ma bëggoon nag xam yow naka nga koy dundee. waaw comme li mu wax rek euh, mën naa ne mbëggeel moom chaque jour dañ koy dund man ak moom. Mhm. parce boo amee jëkkër joo xam ne oyof na. ah jëkkëlu comme li may wax rek labatu ngewel neex na waaye sëyu ngewel ko dàkk moom macha allah dafa jonge waaw te dafa fonk jabaram tout le temps mu ngi xool naka la may bégalee naka la may reetaan damay dem ba dama naan ko sax papa doy na dama sonn ci ree donc moom tout le temps mu ngi may won mbëggeelam di ma fet su lu ci ëpp importance mooy respecté na soxnaam téye na soxnaam kon man ak moom chaque heure sax. yaakaar naa ne même bu génnee day yàqamtiwaat ñibbisi ndax tout le temps ñu ngi dund mbëggeel donc peut-être Saint-Valentin jour la boo xam ne dañ ko jagleel euh, gaa ñi nga xamante ne bëggante nañu mais ñun moom mun naa ne Saint-Valentin chaque jour la ci biir kër gi ndeysaan léegi yow en tant que jekk naka nga koy dundee yaay waajal guddi j'espère bu baax a baax a baax ëpp na kon xaaral ba ñëw ci sam papa dëgg nay xool euh, monsieur Koyate euh, Soriba euh, xam nga nag tey ñun ak yow la moo tax dañuy lay topp ci affaire mbëggeel ba sës mhm. dañuy bëgg xam rek nga dellu si ñu tuuti rek si seen début yow ak madame Koyate waa neex na metti na parce que tout début est difficile ah, et li li li ci gën a pour man li ci gën li gën a ëpp solo mooy tey ki nga xam ni euh, bokk leen juddu bokk leen ndey ak baay mosoo leen gisante ba ngeen dem ba am ay euh, euh, ba ngeen dem ba ràññee xam tuuti àddina yàlla def ngeen daje war a nekk donc jukko yi du bokk gis-gis yi du bokk wante comme li ñu wax rek ay waajuram gërëm naa leen ci benn côté parce que xamal nañ seen doom lan mooy diine. te diine lépp lañ ci bind wax dëgg yàlla e, bi mu ñëwee e, diisul oyof na ba nangu doyloo suma xalaat doyloo kilifteef e, doyloo li nga xam ni moom laa ko jiitoo ak di gën a sant ci ngëm gi mu gëm sunu borom ba mun a jàll sama ginnaaw mun maa déggal mun maa épaulé nag mun maa soutenir gunge ma ci lépp bi ñu xamante yàlla def comme ni ñu diine wax rek La leen seetante jikko bu la doyee bul et euh, daganalal diggante bi donc ñu xool ni euh, wax dëgg yàlla à 95% euh, qualité yi ñoo ëpp défaut yi xam nga donc mu nekk ku baax saykat muñkat li ma gënoon neex ci moom mooy tout le temps bu xëyee day seet ndax lekk naa wala naan naa donte sayuñu ngi mais bu xëyee rek li mu njëkk def mooy woo ma téléphone waaye yeewoo nga ci jàmm est-ce que lekk nga naan nga tey ngaa ñëw suñu kër ma defar la nga lekk donc mu nekk jigéentam boo am kilifa yóbbu ma ba ci ay parents ma xamanteek ñoom yàlla def nag ay parents nekk sumay parent xam nga ay parents nekk suñu ay mbokk donc mbokk feeñaat foofu ndax maam la woon ak sama maam ci papaam ak samay cousin wu papa ñoo daan ànd xam nga loolu tamit gën a yombal affaire yi xam nga wax dëgg yàlla sonaluñ ma ci dara teguñu ma dara ñu ma dara ñu may ma ko ci farata si yàlla na Muhammad boobu ba léegi nag ñuy jéego daanu eh, musul metti ba mu yuuxu eh, ci lépp buñ lekkee kenn xamul buñ naanee kenn xamul donc lépp rek ku ko gis tamit dina ma naw parce que ma defal ko ñàkk ko defal ku ko gis dina jàpp ni jëkkëram wala dina dina ma jox cër bu baax a baax mm-hmm. loolu tamit dama ko ci gërëm di ko wax ni ah nit moom jigéen moom xawma kan waaye moom dina am njaboot gu barkel parce que am na suma ñaan bu baax a baax a baax a baax waaw am na suma ñaan mbokk yi may seetaan comme ni ma leen koy waxee tey feetu mbëggeel la moo tax dañuy ñëw fekk couple daal di dugg seen mbëggeel début ba ba fi ñu toll nii ak lu ñuy waajal kon ba tax na damay jàkkaarloowaat ak madame rek laaj ko yéen ñaar seen début nan la demee ba xam yow fan sa nga woon wala naka ngeen xamante <laughs> waaw moom nag ñu ngi xamante sama jour anniversaire mu def xalma vidéo par la suite euh, ñu daal di gisante bu ñu gisante wee tamit madame kon fan nga woon rek <laughs> waaw mun nañ ko waxee noonu demi fan <laughs> à vrai dire euh, ñu gisante nag mu nekk nit ku ma marqué nit ku ma jàngal lu bëree bëree bëri bëri ci àdduna tey dama koy ndamoo sax dama naan tey rimarta nu mu mel sori baa moo tax macha allah parce que jëlee na ma fenn na ah, comme li mu doon wax avant da nga bëri woon affaire xam nga bëri dosé et tout tey nag mu jël ma def ma yaay faal soppi ma boo mën a njabootee mën a uuf xam nga mën a toppatoo ay nitam kon loolu yëpp tey mën naa ne œuvre am la kon dama ko ciy sant di ko gërëm parce que fa ma jëlee moo gën téeméer fu ma fi ma jëm eh, indi tey moo gën téeméer jun yoon fa ma jëlee na ma ko naan sama àddina yëpp moom la parce que euh, jëkkër gaa du xëy rek joxe dépense xam nga nek ak sa jaba ci jam dañ koy jëlaat nga koy ngay soppi ay jikkoom mhm. di ko defaraat ba mu mel ni nga bëgg mu mel tey donc tey man mën naa ne sori ba euh, œuvre sori ba koy aate laa dara sigil na ma sagal na ma xam nga suñu début comme ni muy wax rek c'était pas c'était pas évident c'était pas facile mhm. mais tey dama naan alhamdulillah ndax téye na ma suturaal na ma fonk na ma te ku gis sori ba xam ku respecté jabaram la macha

mais il est très difficile nga nek jabaru artiste parce que lo xamul jàngoo ko mënoo koo tari donc au début c'était difficile dañ ci dan histoire je comprenais pas mais après xam nga góor gu nek yaay dalal sa xelu jabar góor gu nek yow yaay tax sa jabar bu tëddee nelaw tay mën naa ne bu ma buñ toogoon ba 3 heures du matin mu yeema maa ngi génn du ko laaj sax fan nga jëm dama ko naan demal papa yenn saa day toog sax ne du génn mën na ko jógal nga génn parce que liggéeyam la esthétam la donc man dama am ci moom wàll mais nit ñi tamit dañoo am ci moom wàll mooy la ma sama papa waxoon rek tout au début mu ne ma jàppal ne eh, jëkkëru ñëpp nga am parce que ku ci nekk am nga wàll ci moom donc tey jii mën naa ne amatuma problème boobu ak moom te nit ki la koo xamante ne j'ai entièrement confiance en lui franchement parler te loolu yëpp moom la. macha allah dégg nga ko lu mu wax. waaw <laughs> loolu moom comme li ñuy wax rek eh, dañ toll foo xam ni. Euh, ñu ngi bëgg a nekk ñu ngi bëgg a jëm ay mag et puis euh, boo amee ay doom ama léegi keneen nga quoi au moins am na am na ñoo xam ni tey euh, seen avenir ci yow la dépendre quoi ginnaaw yàlla ak yonenti bi euh, am yeneen doomu aadama yoo xam ni exemple laa ci ñoom folie de jeunesse nag mënul ñàkk. parce que ku nekk jaar nga ci foo jaar nga ci doxaanantu jaar nga ci gel comme bu la yàlla bindee benn statut bi mais am na fooy toll da nga xam ne laa ça suffit mooy euh, parce que tout le temps li ñuy waxtaan mag moom ay waxtaan yu xóot dama ko naan jëlal moo bi nga xam ne yàlla wax na ko muy doylu nga ko ma bàyyi ko ay semaine mu nekk di toj di toj tey pour nga décortiquer loolu boo naan doylu mooy ci lépp loo gis rek temps la ak espace ci ngay étaler sa vision xam nga foo dafa temps boo ci weesoo xam dangay jël beneen yoon parce que yàlla lépp lu mu bind ñaar la moom rek mooy kenn donc ñaari yoon la lay tracé bi yoon bii yoon bu facile la yoon bii nag dafa mooy yoonu dëgg gi donc mun nga mos bi mais bu ci yàgg nga jóge ci loolu dem ci yoonu dëgg bi mooy ko li ma ko wax tout le temps rek man li ma rof foo souvent duna foo naa ko donc laa ay ay mag lañu am nañ ay responsable lañ am nañu nekk suñu ginnaaw te tamit waruñu juddu ba màgg di échec xam nga di di rusloo suñu ay parent wala euh, di di teg yàlla suñu borom gàcce loolu mooy première gàcce bi mooy yàlla peut-être rëcc lu mu la doon indee ci àddina mooy tey war nañ yokk xeetu Seydina Mohamed war nañ fonder une famille xam nga comme li ma wax neex naa jàppale xam ma ni tamit yàquma ko fenn ma jël ko jël ko dugal ko ci sama liggéey mettre ko de l'avant nga teg ko ci kanam xam samay xarit sama staff xam ñoom ñëpp bëgg ko mu bëgg leen ñu ànd jàppale ko moom ci liggéey boobu noonu xam nga ànd ak moom teggal jëkkëram benn charge bi noppal ko comme li may wax rek comme li waale di wax rek noppal na ma samay xarit noppal nañu ma wax dëgg yàlla namu ma dara comprendre nga et tey muy téléphone muy lu mu doon ko woo moom ngay jot ama parce que am na loo ni voilà fa lañ teg te bëgg nañ fa yàgg te insha allahu fii ak yàlla mi ñuy bàyyi ñun ñaar ñu nekk ci ama nekk ak gaay yépp ci jàmm wax dëgg yàlla ci kàttanu yàlla dinañ fa bu baax a baax question bi ma leen di jox c'est valable pour vous deux base de couple benn yoon ngay tontu dégg base de couple non njëkk ko laaj moom madame mën naa confiance <laughs> wax na ko. Eh, doo leen nduroo papa yee eh, doo leen nduroo kay. lu tax dañu nduroo. doo leen nduroo tontu. lan moo tax waruñu a la ko doon laaj moom nekk fii. Mhm. xam nga doo répondre parce que da nga ko xaar ba mu ñëw nga joué ci moom. Mhm. wax ma pour yow xel. non euh, confiance bi mu wax ak compréhension. voilà loolu laa bëgg dama. am na gagné ñaari mots yoo xam ne dinaa ko a teg ci loxo ñeneen ñi. Ah, ok de du loolu rek. waaw compréhension waaw dafa dafa dafa mooy confiance bi rek ak euh, yërmande surtout waaw yërmande gi am na ci solo bu baax a baax parce que confiance euh, confiance ça se nit ku nekk mooy li ma ko wax rek maag moom tout le temps nag défi la ñuy lancante depuis suñu début génn parce que gisante nañ yàlla def ku nekk neexante comme li ma doon wax rek mu bëri woon tiitar trop ndeysaan booba temps ma ñëw ni sa ménagère dama lay présenter sama jabar mu ne ma moo jabar lan kii xam na boppam ma ne ko ah, ah. mu ne ma ma ne ko ok est-ce xam nga benn affaire mu ne ma ne ko barke yonent bi yaay nekk suma jabar mu ne ma mag yow mukk ci àdduna je suis fiancé ko tu mu ne ma je suis fiancé je me marie man ak yow mën naa see ak yow ci génn sax xalaatuma ko ma ne ko ok on mais leen rek moom a jaaxal mu ne ma ne ko dig ma bëgg ba dof mais xaw ma ndax man dinaa la bëgg mu ne ma luy loolu ma ne ko ah man daal dama jógee xam naa ne danga may nopp ah xaw ma ndax mu ne ma ah ma ne ko ñu ne ok ñu dem yàlla defal na xale bi miir mu ne ko léegi mu ne ah, ma ne ko man bëggaguma la de mu ne ma yaay ki may nopp par force gis nga noonu laa ko ma jeer nobee ba di ko way fu ne ma koy way bëggnaalum man fonk naalum ndax su ma samay xarit di la waxataani rima man bëgg naa love xam nga ni loob naa samay xarit di la waxataani ngoon su jot nga romb ma sangu solu sañ si man ma jooy ci yow di la ko wax bul li lii i dëgg la su ma gisul man dama naan kii foog ma takk sama fit wax ko ko yaayu aramo waaye bu ma la seeni rima duma xam lan mooy nekk sama xol ba duma la ko wax ah ah ay ay mbëggeel sonal na yow laa doon bi ma la xamee ba tey ji xalaatuma keneen hmm, ah yow yaay ñi doon wax nan ma wax dama laa bëgg lool ndeke booba yaayi ndeke booba dañu ma doon naax rima yaa ma bëgg wallaay yow yaa ma fonk lool déggal chéri xam nga bëgg naa la ma chéri bamba xam nga fonk naa la déggal chéri allo man de bëgg naa la chéri asan thiaw man de nobbu naa ko chéri papi bëgg naa la Moustapha Ndiaye man de fonk naa la chéri man de bëgg naa la chéri ba man de fonk naa la mbokkum yaay Mariama mbokkum yeeyu jiboo mbokkum yeeyu yasinoo waaw waaw isaa sow la ñuy jooy demba sowoy baayam kajeerooy sa yaay booy soppu la jiiri tey ma dem ba futa tooro waaw seeti aramu mooy chéri mbay dollar yaayu bébé kumba chéri bamba elvision mooy chéri siste lima nopp naa la bëgg naa la loolu fonk naa la loolu bëgg naa la doo am ñaareel. Birame Codou Seyni yu soog Marema surtout Seyni Sow Bangkok doomu Astu Sow bi doomu euh, Moussa Kouyaté bi Bantaba sama ngeere ñani ñani sama ngeere Kamba sama ngeere kenn du yow war a baabi. barki yonent bi maa la bëgg. tàkk leen loolu waaye tàkk leen loolu waaye ah, dëgg neexul ah? man mii def émission bi sax damaa mujjee amee émission parce que man fi sama yëpp sama xol baa ngi neex parce que man jigéen dama cee bëgg mooy dàq lépp mhm. acca bëgg nag avant nga may ñëwal ci moom nga tàggatoo nga béggee ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan rawatina suñu site bi nee naa la ko ci duggul rek booy ba génn YouTube nànk parce que amoo fa place ñun ñoo fa toog nii jël lépp aja ah, papa Awatu awaatu damay gëremat wa ah, Sénégal bu di len ñaanal di gërëm nak ñi ñi ñi ñi japp ci mbaggu suri bay wax dëgg et tay bo xolé suma xarit ki nga xamni ni tamit mom yakku ci dara wax dëgg yalla muy saadi bu borom bax construction ko koy borom somar mbokum yaay mam as ma koy gërëm bu baax et di gërëm ki nga xamni ni Moustapha Mengo Mboro l'international borom Jigen Chor mhm. ma koy gërëm bu baaxa baaxa baax ci mbaggu suri di gërëm nag cheikh ba mooy directeur impôt yu domaine nga xam ni moom suma papa la chéri li sa yi nit ku baax dëgg yàlla di liggéeyal président bu baax a ñu ngi sa ginnaaw te ñu lay ñaanal yàlla ngay fi yàgg téwér bu ko weesoo maa ngi gërëm sumay xarit parce que duma staff sumay xarit laay wax donc ñi nga xam ne tey ah ñoom ñooy man man may ñoom wax dëgg yàlla muy tey ku ci mel ni bamba ama euh, alsan si si sama couturier bu mag bobu nga xam daf may ñewal en même temps nek président des amis de Souriba ma ngi koy gërëm bu baax xam ma si mom nek li nga xam ni mooy assistant bu Souriba ma ngi koy gërëm bu baax yu xarim ay di gërëm ki nga xam ni Papis Balde Balde baan naa chéri Nabouja koku nak suma nit la waaye nga xam ni borom maccal maccal bu muy mom waaw dafa ñay ma ngi ziar sama bras droit ma ngi lay ziar bu baax a baax baax di gërëm ki nga xam ni tamit mom moy Assane Thiaw maa ngi koy ziar mooy jumeau à moi moom mi nga xam ne nag gaynde la quoi ah di gërëm Pape Faye prési xam nga tamit moom mi nga xam ni tamit moom démb la. tey soog a ñëw daf ma baye won nak quoi mais legi ñewat na quoi mi mi ngi ci biir xam di gërëm ki nga xamne moy mbay dollar xam nga di ñaanal bu baax sama xarit la xam nga borom dollar events mom japp ci mbagguy sori baye lepp sori baa la bamba tamit maa ngi koy ziar bu baax borom el vision mo xam ni ah, sama xarit la mom mom mom dafa dafa xër ci man xam nga sister lima tamit maa ngi koy ziar di animatrice bëgg sori baa bu mu jeex momit di japp ci mbaggu sori baye ak wa baraade bi yépp maa ngi ziar nag ku lim juum bamba sekk maa ngi koy ziar bu waar wér di jam di ziar samba fall ama gaa kulim ku lim nag dafay juum ci turu les amis de souri baay maa ngi gërëm ñëpp di gërëm nag suma baay di gërëm suma baay di gërëm suma baay bi ma jur ku sonn ci man la wax dëgg yàlla ku fonk doomam la maa koy ñaanal yàlla may ko gudd fan bu baax a baax bàyyi ko sunu kanam ba ci kanam kanam kanam di gërëm sama wàllu yaay maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm suma wàllu soxna maa ngi leen di gërëm ñoom it bu baax a baax a baax a baax au fond du cœur di gërëm sumay dëkkandoo ñi nga xam ne tamit ñoom laa dëkkal wax dëgg yàlla et ñu nekk ñu ma bëgg ñu ma fonk te lépp lu ma bëgg ñu ànd ceeg man ko ci mel ni maam Mour Chéri Diara maa ngi koy ziar di baalu ak ñëpp ñi nga xam ne dëkk naa ak ñoom faja xam artiste moom fu mu dëkk parfois bruit xam nga parfois son yi mooy loolu waaye wax dëgg yàlla kenn musuma ci ne yaa ngi may e tànkal te lépp luma bëgg rek ñu ci and ak man kon ma ngi leen di gërëm di gërëm nak sama boy konyi ñi wa 15 ans ma ngi leen di ziar ñoomit bu baax ñu ci japp mu dëgër wa gërëm ñëpp rek yaakaar naa ne kulib lim nag dafay juum ku dafay gërëm Medina parcel Parcelles way xam nga wa waa yëmbal Kër Massar Kër Mbay wa wa wa waa fi Tafa dëkk fan la tamit wa Malika ma ngi leen di ziar bu baax di gërëm nak suma dëkku maam xam Mali Tamba sancu Malem Medina Gounass di gërëm waa Maka Koulibantè bu baax di gërëm waa Touba surtout dina gërëm ak Daaru Salaam waa Mbàkke waaw di sant nag képp ki nga xam ne bëgg nga Sëriñ Fallou rek te bëgg la ma ko maa ngi lay ziar bu wér di ñaanal sañu afiya Mbàkke yàlla na fi yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu eh, di ñaanal ñëpp daal murit Tiijaan ama yëpp benn lañ waa Laayeen Njaasaan ama maa ngi gërëm ñëpp waaw wasalaam Wow, waa El Vision Média moom comme ñoom ñoom ñoom moom comme li may wax rek ñoom ñooy sori baa man may ñoom man damay bëgg ñu may gërëmal El Vision Média parce que ci liggéey bi laa bokk ci biir laa bokk ci membre yi laa bokk xam ci ñi ko moom laa bokk bokk pour pour pour pour pour wax ji leer kon loolu sunu yëf la képp ki les amis de Soriba xam na loolu te ñaan fans yëpp ñu xam ni site bi situ Soriba la te Soriba bokk na ci ay euh, ci ci ñi ko moom comprendre nga tey ñoom ñëpp ñu jàpp ci man télé Facebook fenn lépp lu soxla rek maa ngi YouTube site bi mu ngi sama biir dafa am confortable dafa confortable am la madame madame xam madame am sama voilà comme nopp gi nga wax léegi léegi j'espère que xam naa ne loolu moo tax nga jël clip bi nga man man mang ngi koy door a man ci say clip maa koy wala bok musuma gis sa clip man la moo nga choisir sa jabar xanaa nopp gi nga ko nopp moo tax bon on peut dire donc dafa am nit ñi donc peut être yow mbir mais moom ah xanaa kon lim jong ma moo waaw waaw Jongo ma jong ma mi ngi ci parce que jabar ji nga xam ne jongo gën a jongoñu ci wax deug yalla ah. Eh, dama da ngay pose fofu nak parce que yeen la motax yeen artiste tamit papa. yeen artiste tamit la motax ngeen wax seen jabar yi gëna jonguma ci aduna legi ñun ñi nga xamanteni suñu yes amuñ fuñu waxe legi kan lañ ñuy wax ñun. ah en tout cas dal duñ ku nekk lool ngay wax. Ah, da ngay da ngay ñaan da ngay da ngay wax ni sa jabar ki nga bëgg ba tan ko pour yow mo koku rek nga gis tarayam nga gis jongamaam nga gis wax deug yalla en plus leneen moy euh, métier la métier moy euh, top model la ñepp xam nañ ko rimarta Marta Sow top modèle la du clip bu Soriba rek la joué xam nga ngi ci clip yi mi ngi ci film yi comprendre nga bien avant que suñu xamante man ak moom kon métier rek la def xama te mag moom ñooy liggéey d'abord morceau bi ma jagleel ko ko xam nga euh, rendre ko ci hommage euh, no seulement loolu ma woo ko ne pourquoi pas moom mu joué kilib euh, bi rôle bi deug yalla mu nek lu mu accepter parce que tabit duma ko ci force lu mu nek nek jeukeram dina ko baye ak sagom dina ko baye ak euh, li nga xamni ay principe am la moom tamit da ko beug xam nga mu nek affaire bo xamni disul tourner nañ ko ci jàmm et bu mu génnee tamit aussi wax deug yalla amna ci retour yu bax yu positif moy que euh, d'abord parents yi parce que sey parents daf ci am solo moy tay man de xam nga sëy bu nekk day yëngu parce que bànneex ak nakar ñoo ànd wax dëgg yàlla euh, ay param nekk ay para yoo xam ni juruñu ko moom rek donc man lañu jur maay seen taawu kër xam nga muy Demba Sow papam di kilifa gu mag ci kër Mbay Fall yaayam kajeeru tamit di suma yaay parce que wan na ni ama ñàkkuloo yaay maa ngi ci sa wet xam paa bi tamit wan man ma ni sa papa nekku fi waaye man maa ngi fi man yow laa jur mari du suma doom kon loolu dafa nekk loo xam ni dafa rëy ci man donc lépp lu ñuy def rek dañ leen di tàggu ñu conseil ñu jaar li boo waxee mu ne mag mari ay vampire lañu. mais ba sunu day jël sax sunu doom naan sëtam bi dama la yërëm yaa fekk ñaari vampire nga juddu ci ñoom xam nga tellement que xam nga kaf bi ñu foofu c'est que xam nga ay amul limite. ñëpp ay xarit lañu wax dëgg yàlla ñu ñuy conseiller sam papa xam tamit boo xoolee man juruma nee na kii mooy doomam bañ na ko sax du ma woo téléphone kii lay woo téléphone kii bu ko kalaameeg man sax du woowee du ma laaj <laughs> day war rek dal sama kaw <laughs> loolu tamit c'est c'est c'est bien beau quoi parce que ñoom dañuy jàpp ci sëy bi bu baax a baax wan ni ñu ñu ñuy encadrer di ñu teg ci yoon di ñu xamal tamit àdduna parce que ay ndaw rek lañu te léegi léegi ñu juum quoi wax dëgg yàlla waaye ma dem madame Koyate yow sa jëkkër bu génnee ci biti euh, par exemple bu ñëw énervé nga gis ko ci kanamam nan nan nga koy defalee. waaw tout d'abord dama koy dalal may ko ndox mu naan bàyyi ba mu dal mu ñëw toog ci wetam nag papa lan la moom nag dafa bambara bu xa bu xasee ba jàpp mer bu mu wàcc day nekk problème léegi bu ko defee damay obligé sama yëfu golo rek. nekk di ko cokotaan. nga di kaf ak moom ba mu commencé ne yow jaaxal nga xam nga ba ma gisee ne commencé na féex nag. man moom wax ko defee mu ne danga ma danga ma sonal yow ma may jàmm ko defee nag après xam nga ñu toog ñu waxtaanee ko xam nga des fois mu jël dara réyal ko ma ne ko papa dara xam nga ñu waxtaanee ci mu gii fàtte na ko pare na ci moom histoire bu ko histoire rek coow ci pare na ci. ndeysaan moom du jàpp. ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay jaajëfal baax a baax di kontaan nag ci li ñu la fekk sa biir kër ak li nga ñu wax lépp en tant que femme en tant que femme mariée en tant que aw buur këram ñuy bég bu baax a baax <laughs> di la wax nga euh, tàggatoo en même temps tamit nga waxaale ci suñu site bi nga xamante ni ku ko seetaanul fi mu ne nii booy boo génn YouTube. waa tout d'abord damay gërëm sam papa. Mm-hmm. di sant sama yaay bu baax a baax a baax a baax ndax euh, mën naa ne lépp moom la jàllu jéeri di gërëm nag sama papa yi bopp parce que duma ko wax sax goro dama naan sama papa la comme li ma wax tantôt rek damay joteeg moom sax il cherche même pas à comprendre sama confident la dañuy toog di waxtaan xam nga bëggal ma boppam ba ma xam ne kii jàppewu ma goro euh, doom la ma jàppee di gërëm sama goro yëpp di leen di leen di leen jaajëfal bu baax teg si di gërëm nag ah samay doom parce que boo nee bu ma nee samay doom nee naa doomi sori baax di gërëm nag sama xaritu jëkkër yi toog nga xam ne ñoom it yàquñu dara ci liggéey bi chaque jour dañ ciy jàpp chaque jour ñu ngi may nemmeeku nopp ma bëgg ma teg ma foo xamante ne man mii sax dama naan des fois je mérite pas place donc maa ngi gërëm ñëpp samay am di jàmm samay xarit samay sœur samay frère maa ngi gërëm ñëpp El Vision nag moom euh, man nee naa man mooy sama site préféré parce que saa yu ma xëyee man si seen sit laay dugg di xool information yi <laughs> à temps donc maa ngi gërëm ñëpp euh, di leen jaajëfal bu baax di la gërëm yow ah, ci invitation bi tey voilà mbokk yi est lañ leen comme euh, Saint-Valentin la ñu wax ñu ñëwoon si ba bi këram ak madame vraiment ñu am ci lu ñu neex bu baax baax j'espère que tey incha allah ñëpp dinañ dundandoo mbëggee que ñun ñi nga xamante ni petit jeeg ji nga xamante ni ñoo ci biir kër yi ndax que la mais pas pour c'est pour les mariés surtout les deuxième femmes voilà kon nag mbokk yi bu baax di di gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina samay cameraman dollar events ma ngi kontaan ci moom bu baax a baax ko koy mbay dollar ak série Sophie gay Bamba gay ma ngi lay kontaanee bu baax a baax di kontaan ci toute l' équipe Elvision Média waaye itam di kontaan ci bépp staff sori ba ak ñëpp ñoo xamante ni xarit am di jàmm fans ma ngi bëggee ñëpp di kontaan ñëpp sawpu la woon ci plateau Saint-Valentin peace